Alaaji Ahmed Aidara bismillah ndox mi bari na tribune yéene kaay ne fukk ci ay doomu aadama ñàkk nañ ca seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaraax day moo gën a kon diis la ci bilan boobee nga xam ne guddig altine jàpp kon talaata la lu ci toloo juróom benn ci ay doomu aadama kon ñàkk nañ fa seenu bakkan réew mi quotidien ne faatu càm kon bokk na ca wan noon noonu lor lu ci toloo juróom benn ci ay weer tribune yéene kaay ne am na ca ñenn ñoo xam ne rëcc nañu te ñooñee ñàpp faatu ca waa ndol ndol lañ nekkoon ca diwaanu njaarim gee yéene kaay gi ne mbir mu ko kon ca Grand Yoff gee bu jigéen boo xam ne attaqué genn wàllu kon lay toll ñàkk na ca bakkanam ca booru bassin de rétention ba keneen ñàkkaat bakkanam ca Grand Médine gae xale bu góor la juróom-ñaari weer kese lay am Le Pays au quotidien ne ndox ma ma ca Dalifort gae ña nga xam ne inondation yi waaye tamit banqaas yi nga xam ne kon moom la ñu fi defar di wàllum infrastructure yoo xam ne kon jagul moo indi lu salta temps termine yéene kaay ne moo taxit premier ministre ba daa ñibbisi kon daar daar te président Macky Sall kon ba mu ñëgee mbir ma xam lu ko miti lool ci fukki doomu aadama yi nga xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan te dara waralu ko lu dul wàllum inondation yi ka nga xam kon moo yor kàddoom di Amidou Kassé nee na day xam na ne danañu jël kon matukaay ya war ngir saafara kon wàllum inondation yi inondation yoo yee paree guñ ca di ko fe suba yamu ca député bi nee na woo na kon bépp sénégalais boo xam ne kon Sénélec mi ngi lay bëgg a rey ci alxamis ji ci assemblée nationale te danañu taxawal nag ab kuréel goo xam ne danañu porter plainte kon Sénélec mi le njabootu Keïta Sidibé waxoon ne kon kon feeñ na ci autopsie ne Keïta Sidibé moo mais autopsie ba la mu wone mooy am na kon ay góom ca yaram ba ay damm-damm it am na ko ba ca sax ba boo xam ne kon bu la deret yoo xam ne kon dooy tuuru des ca yaramam te nee nañu gendarme ya Le Quotidien yéen a kaay ne moo tax juróom ci ay gendarme kon teg nañ leen loxo yóbbu leen ca Tambacounda gee te danañ leen indiwaat kon ci diwaanu Ndakaaru gii Le Populaire ak Walf Grand Place ne autopsie ba day gendarme yi kon lañ taxal bañ nga rubba mbooloo mu baree bari kon doon ko jébbali boromam waaye dañoo am mbetteel kon ñoom mbooloo ma ginnaaw ga kon lañ leen xamal ne kilifay takk ya kat yóbbul nañu njabootug Sidibé moo mais ñaar ci ay millions ne ñoom ñoo dëkk fii am nañu habitude bi le seen jikko la saay bu ñu rayee nit ñuy nangu kon di tàllaluk loxo wala boog di jël di tàllaluk loxo loolee c'est pas normal Assane Diallo ne gis nga Sina Sidibé bi mu dee fii ci Kédougou nguur gi lu ci tolloo fukk ci ay millions laa lay wax nii la génnee ba ni ñuy addoo furaas daal di xiddeen enquête ba mu jul fenn Alpha Sylla ci Walf Grand Place ñin dañoo xamul lan mooy ndeyu yow ci nguur goo xam ne état de droit ñuy rey ay ba pare di yëkkati xaalis di ko jébbal seenu njaboot mais loolu dadul sax yëfu lenn ci ay doomu aadama ñoo ñàkk seenu bakkan ci juróom-ñaari fan allahu akbar talaata jële ñu génn sept août ak talaata ji ñu génn fukki fan ak ñeent ci weeru août jëlee fanweer ak juróom-benn ñoo ñàkk seenu bakkan le pays au quotidien Sall day nee dana xeex ak bëccëxoo gi nga xam ne kon moom la ñu nimmiku ci réew mi di désordre waaye itam ngamadi gi nga xam ne kon ñenn ñi ànd nañoo moom ci secteur yëpp Macky Sall yaakaar ne lii kenn waru koo mën lii lañ xamul lan la libération yéene kay ne borom làmmiñ ñi ñaw yi dee nee nañu nguurug Macky Sall kii daa ilaha illallah waay wax lay rafet waay ah maa wax lii nee nañu nguurub Macky Sall gee ay gaaf waaw ñaar fukki doomu aadama ak juróom benn ñàkk seen bakkan ci accident ci yoonu Tambacounda ba beneen waxambaane ñu rayaat ko ca Tambacounda googee inondation yi ñëw rey lu ci tolloo fukk ci ay doomu aadama accident bi am ci week-end bii ñaari doomu aadama ñàkkante kon seenu bakkan ñu ne fa la yem ñu ne déedéet ndaxte caaroy gae kenn kuy dawal scooter am dañ ko faa rayati encore booy xool ba ci biir ñeen fukk ci ay doomu kon ñi dee mbir ma kon yegg na fa moo taxit borom làmmiñ yu ñëw yi di xam leen ne Sall gii daa ay gaaf de bu ñu génnee këyit di yëgle leen wàllum communiqué rek xamal ne kon dañuy jaale laas ne président bi day ah njuuy ne gaayam ya mu àndaloon de ko doon jàppale ci élection yi Macky Sall njuuy ne leen ndax da leen a diggoon kon Sénat ba te Sénat boobee Macky kon mujj na koo jox appartient ba ah waaw waaw waaye waa M23 day fas yéene nañoo defanteeg Macky Sall ba mu très bien mar d'Italie l'office yéene kaay ne waa M23 kat ko fi tey te d'accorduñ benn délégation boo xam ne danañu ko yónni ca président Macky Sall ngir mu dem yeyu ko bu yeyulee Macky Sall maanaam convaincre ko nag danañu jàkkaarloo kon ak Macky mi lee waa M23 goo gae ci fàttali jàkkaarloo woon nañ ak nguuruk Abdoulaye defante ba maara day taali Alioune Tine ñu ko agressé waa yaanaa maar ñu teg loolu loxo te nekkul ne kat ñoom ñoo ñooy kese ñoo bañ kon ne Sénat bii du fi nekk ndaxte parti wu Doudou Sarr nee nañu Sénat bi ci boppam la ñu bëgg ñu tas ko waratu fee ne assise tamit ba nee nañu nañ ko fi jëlee le gundaandaat ak noos gu réy gi nga xam ne kon moom la ñu nimikoon ca armée ba lu ci toll ak ñaar fukk ak juróom ci ay généraux ñàkk nañ kon seen yenn yu bakkane bakkane waaye yéene kaay gi ne li ñenn ñu yaakaar nag ci ab général ci Sénégal gii ak laa am comme yàlla ak yàlla ah, maa la wax lii de ministre yee leen ëppale yi ëppale leen salaire fuuf daanaka ñaari yoon waaye kenn du Amadou Moustapha Thiam libération yéene kaay ne mooy Madoff bu Sénégal de le Madoff made in Sénégal ah, waaw waaw parce que Amadou Moustapha Thiam lu ci toll ak ñaari milliards milliards ak juróom-ñeenti téeméer ci ay millions la ne mes ne menteng daw ak moom la ilaha illallah maa la wax lii juróomi banque la Amadou Moustapha Thiam kon dëbb li nga nax leen ne mes ak seenu xaalis BOA BRS SCBS e PICIS BA dalee na nax waa super étoile moom dañ leen a nax wala naxuñ leen Le Quotidien yéene kaay ne atu yàllaa ngi ni le ginnaaw kon ba ñu toogee defuñu daa ba dara booloo jeex ah ñu ngi préparé ab révolte di ab fippu de ñoom waa super étoile Pape Omar Ngom guitariste ba nee na mënoo jël ëllëg dénk ko ni koo xam ne yow daa jaar feneen kooku kana xamoo ko Habib fay ne Youssou Ndour mii nekkatul suñu patron super étoile ñin la man Habib fay maa ko wax Faye biram benn njëmee yamu ja Habib Faye ne Youssou Ndour dëgg la moo yoroon baat bi di way waaye ñin ñoo ko doon gungeekoon ak suñu musique bii ba li mu doon tey mu doon ko guitare basse Habib Faye ne danañu won adduna yëpp ne ñu ngi waajal kon asmir organisé wu Jimi Mbaye ne xam nga problème bi lan la mooy Youssou Ndour ci boppam moo ñu manqué respect respecté parce que yow mënoo di ànd ak nit fanweeri atu yàlla mais yàlla minimum dañuy wax ne Jimi Mbaye jóge na super étoile dëgg la parce que man Jimi Mbaye du ma nangu mukk ñu may tànnal loo xam ne man maa moom wala ca laa di tànn sama place te man Jimi Mbaye du ma nangu mukk ñu may joxoñ yoon ba nga xam ne kon fa laa a jaar jamais yéeni kaay ma jambal jàngi ne moom lañ ne mooy njiital super étoile léegi patron ba waaw ñu ko laajee ne ko waa super étoile kat dégg naa ñi ngi waajal kon ab projet ngir defaraat kër ga mbay jeey fay dani yëguma ko de kor maam njaay yemu ca ndaxte mbay jeey nee na boo leen ma woowaatee ci semaine bii di ñëw ma jox leen ci lu a yaatu lu a leer laa <laughs> ilaha illallah semaine bii di ñëw maa la wax lii